Iya mama merci Moussa neel sa yaay jaajëf liggéeyu ndey neel mama merci lay lay la laaw lu jeg de rawan ah, ee eh, lu jeg de rawan tiyan liggéeyu ndey ñaanu bay gu nangu la jeg de rawan tiyan damani neel sa yaay jaajëf liggéeyu ndey neel ma maa deesi lay lay la laaw lay lay la laaw li nu ñu bëggoon dalu la ah ma génnoon ni rus nañ li nu ñu bëggoon dalu la ah rek génnoon ni rus nañ li nu ñu bëggoon dalu la yeey bàyyi noon ni rus nañ li nu ñu bëggoon dalu la yeey ayo noon ni rus nañ ndoxumtaan ndoxumtaan sa géej cey sa wira ma jee fi jàppa yàlla baax na si jey musaa dey ci baay lay lay la laaw yaay garmi yaay bëte bëte ki la aji jaal mbaayi di way ey mooy garmi mooy bëte bëte ki la aji jaal mbaayi di way lay lay la laaw lii dafa neex ajaratu mam jaara njaay ajaratu mam jaara njaay ajaratu mam jaara njaay ajaratu mam jaara njaay hey hey bis bis la bis la adamo adamo dawal dawal lay lay la laaw ci bés bi sa bés la ne ne tuuti ma wax yow tuuti eh ñaata ba ñaata ba eh ñaata Kali parce que tànk guddi doo jigéenu guddi taawul xeebuloo fi guddi xëy ba cëg sa gémmiñ gi fuuti lay lay la laaw lay lay la laaw léegi di bëggoon daru la ah ma génnoon di ah Nooni rus nañ le nooni bëggoon dam loo yeey baayu nooni rus nañ le nooni bëggoon dam loo yeey yaayu nooni rus nañ lay lay la laaw yaay garmi yaay bete bete ci la aji jaal mbaayi di way ey mooy garmi mooy bete bete ci la aji jaal mbaayi di way lay lay la laaw li dafa ne ajaratu mam jaara njaay ajaratu mam jaara njaay yaay noon bete dey noon may dégg yaa ngi may dégg Kali. naam. yaa ngi may dégg. Adamo maa ngi dégg bari bëgg nga kaa trop lii sama kaala la Adamo. non non non sama kaa la man dama laa woo la li ma lay wax nag yow laa ko bëgg a wax xam nga man ak yow bokk doora. ah loolu nga wax ndànk. dinaa coupe xoolal maa ngi wuy ma déglu ma maa ngi coupé nga woo ma wax la loo xam ne kenn du ko dindi bëgguma wax ci live ndax commencé gu ma mais yow woo ma téléphone nii maa ngi wàcc. ma coupé di bi nag bu kenn dégg li ma lay wax. léegi maa ngi lay wax sama numéro France bi. jaana. ma bala euh, euh, nga teg sa micro maa ngi teg sama micro. xoolal ma bàyyil ma woo Adama ma non man damay nga jëlaat ma. mais xoolal tëjal micro na live bi waaw maa lay woo ci numéro France bi wat ab na numéro France bu lay woo la. tey yàlla tey ah. Adamo da bëgg xëccoo ak man kaa bi Adamo yaay defe yaa hmm? animu sax xaara ana Adamo lay Adamo yaa bëgg kaa xaara ma tëj micro bi gars yi tapote leen rek yéen ma woo Adamo xam naa daa bëgg ma bàyyi ak moom kii bi quoi nu mu tuddati kii bi quoi kii bi jàpp jàppat bi jàppat bi <laughs> sunu xarit sunu am di jàmm PDG Doro Gueye borom xol bu rafet bi yàlla yàlla la fal ko cap kii ñu gis it Racky la waaw donc pour encore une fois rek ñi doon wax boobu ba léegi. power off. Oh excuse-moi man mosuma wax si yi sax mais boo gisee ñu wax si sénégalais yëpp dañ si yàgg di wax sénégalais yi ñoo si yàgg di wax te képp ko am ne euh, xam nga ne am nga loo si wax rek. wax ci loo xam ak loo maîtriser grand bi mérité na lu ëpp Clara ak ay rakki parce que xol bi yàlla def ci moom la PDG Doro Gueye dafa mérité lu ëpp ay Clara ak ay rakki ay dara bu amee Clara am rakki jombul grand bi parce que ñooñu ay jaamu sunu borom bi lanu yàlla wàcce leen ci dunyaa bi garant bi ëllëg aljanna óoril ay nii mu nar a ami sax yaa ma a xam ñii ay soxnaam lañu te it bi ku ko am koom borom kër am nga borom kër bu teey bu yiw bu dal bu baax nit ku maandu nit ku kenn xamul tey kasaw kasaw ak ay kenn xamul grand bu responsable donc lu nu mën rek mooy ñu ñaanal leen yàlla ñoom ñëpp muy Clara muy Racky ak ëllëgi ci biir it keneen bu naree ñëw it yàlla def ko it parce que yàlla sunu borom moo ne wut leen ñeent bu ngeen ko mënee te grand bi it wax dëgg fa yàlla mën na ko mën na ko waaw yéen ñi dinaan ay Racky sël wala Clara Sall man ñoom ñëpp laa yemale parce que soxna grand bi la. man aw ma si xaaj aw ma si seen wax dëgg fa ma si xaaj aw ma si seen ñoom ñëpp grand bee seen njiit grand bee seen kilifa grand bee seen borom kër ñun grand bi sunu grand frère la donc ñun amuñu pour di faral Racky wala di faral Clara wala di faral keneen ñoom ñaar ñëpp lañu faral ñoom ñaar ñëpp yàlla la fa leen cat ñu continuer di toppatoo sunu grand frère bi yàlla continuer di ubbi wërsëg yi yàlla continuer di dalal xelam bi yàlla continuer di ko jàmm di ko may salaam. ah gars yi naan Adama moo fi jaar Adama moo fi jaar non yéen Adama la naan fi jaar lu xew xanaa dafa am leneen lu xew lu xew feneen te man yëguma ko ah. li ma nar a wax du Adama moo koy kii am na lu ma si bëgg wax mais xaar xaar jël ñii naan kali jël ma kali jël ma xool ñoom lan mooy seen problème sax yéen Kali. oui. Kali Kali Kali sa kaa bi wala sunu kaa la. ah sama kaa la de moom. Doro kay moom ku ko xam-xam ne jëfu Kali fan est ce que Adamo bëgg tamit sa kaa bi doy waar. Adamo golo de gis nga de mais yàlla baax na pourtant <laughs> c'est pas méchant ah ñu ne grand bi wax dëgg yàlla dañ koy féliciter rek. ah mais góor la. waaw. doomu aadama la am na droit takk takk euh, quatre femmes. ba ñeent la. Mm-hmm. wax dëgg yàlla jullit la mën naa yore jigéen. man daal li may wax rek mooy ni ko di ko ñaanale yàlla lafal ko mm-hmm. cat. waaw. Mm-hmm. waaye man moom damay far moom man moom maa ngi ci rakki ay dara. ah neex waaw waaw. Clara sama mbokk la waaye man rakki laa faral. Clara jàmbaar la de. jàmbaar la moom wax dëgg yàlla jàmbaar la. waaw. liggéey na ci biir Sénégal yàlla jàmbaar la liggéey ci bitim réew waaw suñu bi yàgg na ko sant yàgg na ko gërëm jigéen dëgg la la suñu kanam ñun ñëpp waaw kay waaw boo xoole ay statem sax bu ko dugalee da nga koy gis ko koy dugal di ko sant di ko gërëm xam nga ni góor man moom waaw li ma koy ñaax rek mooy Clara moom moo fa jiitu rakki na def rakki rakkam waaw na toog gérer ñëpp comme aw buur këram def ni noonu lay deme sax parce que waaw tey nii nit ñi du duñu wax kenn dëgg dañuy jayant dañ lay jay te boo hmm. wanee ginnaaw ñu wax la loo xamante ne mooy loolu man hmm. moom li ma koy wax rek Clara joolaa la na def yëfi joolaa na gérer sëyam gérer jëkkëram kenn bañ koo xamal dara gis internet bi lu ñu kaa rek la ñuy wër nañu gérer seen sëy gérer grand bi grand bi nit ku baax la ku xam. door a yow selon selon yow Racky lan moo tax mu dugal photo yi story. waaw parce que xam nga la moo tax ma ne tey jii Racky parce que boo xoolee tey foo dugg rek tey ñu ne Racky gagné na bureau bureau na vote yëpp parce que xam nga lan moo tax. Clara dafa dafa dafa wàccee boppam dafa wàccee boppam parce que loolu du cëram. moom warul sa nekk fii di wujjeeg rakk di ko def publiquement wala di ko kii parce que wujje ci xel la. loolu loolu nag dafa yàgg ci affaire jigéen nag xam nga. waaw dafa yàgg ci ay jigéen mais moom na na na na ka wan ne man maa la fi jiitu. maay sa mag loolu la war a doxaleek moom mais warul di doxalee kii bu dugalee moom mu dugal kii bu defee lii kii nangam ak sàngam parce que amul solo kii bu kii xale la bu ñëwee indi jikkoy xale yow wan ne ko man mag laata te la fi jiitu man man maa man man man maa man xam ni may gérer sama waa ji loolu moo ëpp solo mais du topp parce que Clara da ngay dem ba xool euh, dernier moment yi chaque jour day dugal ay ay ay vidéo chaque instant boo xoolee sinap beeg kii bi day day dugal rek day dugal lekk te amul benn importance affaire affaire jigéen la tamit affaire jigéen la moom wax dëgg yàlla affaire jigéen la mais xam nga xam nga jël responsabilité waaw jël responsabilité ba mu jotee grand bi dem mhm. sax ko soxna dëgg la moo tax man ñu ci bëri xamuñu woon ndax dañ doon wër di naan takku suuf laa takk nangam boo xamul xamoo mais ñi xam xam nañ parce que bu doora buy takk ji euh, euh, rak yi du dem di tàggu ñi ci internet bi wala du dem di ko wax feneen ay mboqam lay yoon ñu dem takki ñu dem takkal ko jabar comme ni mu kalaara Clara takk keneen ak keneen kon am na droit takk ba ñeent jabar mais nit ñi nañuy maandu Racky moo xam lu tax bañ ko taqee publier wu ko wala waxul ne dañ maa taq wala nangam parce que wax na ko moom nee na comme dafa njëkkoon dugg ci sëy te uh, gis na internet bi nuñ ni mu sëyam ni mu ci meloon loolu moo taxoon mu bañ bi loolu dalaat ko dañ koy ñaanal yàlla lafal leen cat sëy bi barkeel ñu am ci njaboot gu barkeel yàlla jiboole leen ñoom ñëpp grand bi ne grand bi daal nekk ci jàmm en tant que jigéen boo amoon looy wax Racky mii nga xam ne ndaw la loo koy wax man rek li ma koy wax mooy ni que na sëy topp jëkkëram jëkkëram lu mu bëgg na ci nekk lu mu bëggul bu ci nekk. mu defante wala mu bàyyi defante. defante moom mënta ñàkk ci ay wujje. ah kay defante nag defante nag mooy yàq la nañ bàyyi defante bi. déedéet non non ñàkk mais man li ma li ma koy ah? li ma koy li li ma koy rek mooy ni que seen vie bi ñu bëgg exposé ci internet bi. nañ ko wàññi. te sama grand daa bëri kersa nag sama bu xamoon photo yi sax day génn sama grand du def yi. billaahi ba dafa bëri kersa doora dafa bëri kersa. Ah. doora dafa bëri koo xamante ni. yow pour nga gis dox ba ci mbedd ba gis ko sax problème la wala pour nga ah. dox ba gis ko ci ay mbir sax problème la di génn ko yàlla xam na loolu. mais ah. yàlla bu la nattoo ay ak ay soxna yoo xamante ni wax dëgg yàlla dañoo bëgg ay defanteeg ay nekk ay média. wax dëgg yàlla lii doo ci mucc mais ah. dañ leen di wax rek Racky moom na gérer sëyam na sëy sëy bi digal déggal jëkkëram lu mu bëgg mu di ko def na sëy sëy bi daal gérer ba mu baax lu mu war a def mu def ko ñii seen soxna yi amoon ñii seen jëkkër yi amoon aawa yëpp ba boo dañ tiit de jamono ji moom gars yi xëppatal nañu aawa ñaareel ñetteel de ba ñeenteel dafa xew. waaw parce que jamono bee ko laaj ndax fi mu nekk nii moom góor ñi faaw ñu takk nag. Euh, dimbali dañ leen di dimbali sax parce que bu ñu ñaar ñett ñeent day am ñu lamb te lamb ñëpp lamb baaxul. mu mu ngi noonu jigéen ñi wax dëgg yàlla te xale yi dañoo gën a jongoma gën a rafet. xale yi dañoo mën a defaru. xale yi dañoo jongoma gën a rafet mën a defaru léegi nag yéen aaway ah il faut ngeen préparer wu loolu bu ku fiy toog naan bëgguma wujjeeg yooyu loolu moo lay sonal parce que lool boo ko defee sa bopp bu bu wujj ñëwee da ngay sonn da lay dof loo il faut que xam loo bokk benn góor bu mel ni PDG sax loolu loolu dafa neex parce que nit koo xam ne du kaas du wax du du du wallaahi ah bokk ko bokk wërsëg la quoi bokk wërsëg la mu ñoo war a a jàppale sax pour bu ko defee grand bi ay projet am di mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu. koo xamante ni ay coow ay détails grand bi du xam ban fu muy taxaw quoi. wallaahi te te grand bi wax dëgg yàlla coow bu dee am tamit waruñu koy dégg ci coow yii nii ndax moom ñun ñi ko xam xam nañu kilifa la man damay gis sax nit ñi ci commentaire yi naan ay doora du kilifa ay doora nangam ak sànq ku ko xamul mooy wax loolu mais ñun ñu ko xam xam nañ ni doora kilifa la. kilifa la te nit ku baax la nit ku mën a wax lu baax nit ku mën a def lu baax nit koo xam ne dafa discret. moo tax nit ñi. nañu bàyyi di juge nit te xamoo ko Clara li ma koy wax moom tamit na wàññi tamit géwél yi parce que géwél yi lu ñu mën a yàq dafa bari te moom waaw te moom doomu joolaa la doomu làkkat la xam làkkat sax xamut yooyu na wàññi géwél yi koy dar duñ la wax dëgg gé fu ñuy seen poche doomu la ñuy wër ay nekk li ñuy wax moo amul benn sens fii ku ñu takk nopp nañ la grand bi ñoom ñaan ñëpp la yemale ñoom ñaan ñëpp ay jabar lañ kontaan nañu daa am ñeneen ñu bëgg participer jaajëf sa kàddu am na solo. jaajëf merci ok allez première dame xaw ma huitième bu dee am nga première moom di nga amee deuxième bisimilah noo gis. Kalaara ah, Racky Aïdara yow loolu di jàmm di salaam defante bi rek bu ko defante. Eh, man man première dame kese bu loxati loolu jigéen jigéen bu dul defante nekkoo ci dara jigéen da ngay am sa borom kër ngay defante. lii dafa ah. baax jamono defante bu ko defee di nga jënd yére yi rafet di jënd daal yi rafet di sàncalu rafet maa la wax lii defante dafa gis nga góor ñi lii leen ci bëgg lii leen ci bëgg jël jigéen ñi teg leen ñuy defante comme ça ñu mën di leen ah, góor ñi góor ñi jàmm la nu bëgg te lii jàmm la tamit wax dëgg fa yàlla am ay aawo yu ki ñaareel yu baax ñu lay tëll fii ah, kay tël fee man kale yi contre ma ko man man man man sincèrement mais munoo ko contre parce que yàllaa ko daganal yàlla ne wutal ñeent ku ko contre da ngay sonal sa bopp. lii yàlla ah, ko jigéen ñaa ngi fi di ko contre di mer bu ñu sa problème la lii ku ko contre sa problème la. yàlla suma borom moo ëpp yërmande moo ëpp doole. yàlla moo ne boo ko mënee wutal ñeent. waa ah waaw boo ko contre da ngay sonal sa bopp. waaw ñi fi ñi ko fi mën yëpp wut ñaari jabar ñoom la seen jabar yi mer nii di dem. di tas ñu leen di takkaat ku dem keneen ñëw adduna bi ñu jëm de moom ku dem keneen ñëw. la vie moom. ma dematuñu. Ah, baax na boo demee boo demee feneen gis keneen ku da kiiwaat rek dem. loolu ngi dem bañ a dese kat nga naan gaa yi dematuñu doo génn ci yooyu nga ne. mu ne la. ma ne yaa ngi dem ba gaa gaa yi ñu ngi dem ñu leen di takkaat. ma ne buñ la takkaatee it ki la takk bëllëg day takk nga demaat dangay continuer noonu wër ba yow ma la xiyaam. ma ko takkaat doo génn ci ñu yaa yóbbu kalaaraa yaa fekkee. ah kon lu tax ñu takkaat ko. kan moo ko takkaat. Ah, kon li doon def tey lan la. ah kii di rakk nga naan ay kalaaraa xaw ma lan rek lan rek lan déedéet nga waa ki ñoon takkaat tey kan la. kan nga gis ku ñu takkaat tey. yow yaa ngi fii di wax xam xamoo sax looy wax. mais mais yow mais yow rek la kii Kalaara lan la doon defaat tey. Kalaara da nga ko gis mu def dara. ah Kalaara tey sol sol robu marié. sol robu marié mais moom la neex mu sol robu marié di défilé comme ñëpp. yow génn ci yi nga ne man toute façon xam nga lu may xam nga lu may wax Kali bàyyi li bàyyi li may def. yàlla baax na. <laughs> xam nga lu may wax <laughs> kenn dugalu la yow garaa bi sa garaa la man xam naa dañ kiy taxawee yow fi mu ne nu mu gën a rafetee rek noonu nga koy waxee parce que garaa bi sa garaa la te ah, ah. garaa bi tey mooy loolu ah, mais mais mais man man man man personnellement man wujjee bañu ma ko sànq maa ngi ci doon live di ci wax parce que na ñun jigéen ñi dañoo war a nangu góor ñuy takk benn ba ñaar ba ñett ba ñeent rawatina boo ko mënee hmm. man dama kontu rek ngay sëy góor mu am rek nga bëgg ma yem ci yow kepp te Clara moom bi muy sëy si daf fekkoon door am jabar Ah. kooku toog kooku toog muñ loolu gérer ko. bul dugg foofu ba gis keneen. takkaat ko loolu ay bul dugg foofu. Ah, si wax wax la rek. baax na ñëw dooro dooro demaat ba gis ka ba gis rakki takk ko loolu aayul xam nga lan moo bonoon mu fekk dooro gay toppatoowu ko yoru ko ni mu ko war a yore hmm, sama dooro bi de day toppatoo nag. waaw mu ngi noonu. Clara boo ko xamee Clara dix ans ci ginnaaw bi mu suñu idole ak Clara nga xam ne am na changement toppatoo nañ ko. ah baax na. def ko femme d'affaires kon beneen góor beneen jigéen ba takk ko pour man tey Clara bu fi doon xamee personnalité am dëgg ak jigéen bu diñ dëgg jigéen balaa nga xam dignité ak personnalité am mu dem ba am wujju naka la koy gérer. ah yàlla naka la koy gérer naka ngay comporté woo léegi leen di loo conseil ñoom ñaar li ma leen di conseil daal mooy man man euh, su ma doon rakki mi mujjee ñëw ni rakki ay dara damay toog ma jàpp sama ñaambur ma toog ma sëy sama sëy. sama jëkkër li fi nekk ay xale jigéen ci Sénégal yëpp mu romb leen fi ñëw takk ma nopp na ma bu ko noppatoon du ko takk damay toog duma ma sëy sëyu réseaux sociaux du ma sëy sëyu defante du ma sëy sëyu kala du ma wut benn jéeg mu may geerle nekkuñu ci geer ci lañ ne moom moo mujjee ñëw moo war a toog téye jëkkëram wane preuve toog sëy sëyam Clara Doro yàgg na koo takk mosuñu am benn problème xëy na xëy na ñaareel bi moo tax ñu am problème mais moom dafa waroon toog jàppale jëkkëram soutenir ko surtout problème yi jëkkëram jóge yëpp warutoon sax na ko benn coow di am wala benn bruit di am. yàlla baax na moom waroon na toog. jàppale man kay comme ni ko saa waxee est ce bi sax. ne ko grand sénégalais lépp léegi yeewi leen ñu dégg. <laughs> ah xaaral xaaral xaaral ne quittez pas ma xool est ce que bindu ma message sax attends xaaral ma génn dugaat attends. d' bokk jëkkër bokk wërsëg la rek loolu dara newu ci dañ sëy rek Doro gay mii bu bu takkoon ba ñeenti jabar sa war nañoo mën a toog sëy góor gu la takk yor la fi réew mi toll nii sa dara manqué wul mu dëkk la dëkkoo la Clara bi ko Doro di takk boobu nekkul femme d'affaires te léegi femme d'affaires la macha allah mu def ko femme mu def ko mu def ko mu nekk mu yor entreprise di liggéey di tukki di dem di ñëw di dem ci festival kaan yu mag yi ah bu la góor takkee teg la nu mu defut kii def la nu mu defut kenn koy def noo defut kenn. sagal na ko yor na ko bu la gisee bu bu demee ba gis beneen xale tamit takk ko mais yow yaay toog na nga jàppale sa jëkkër nga di am baax na ok Fadam Fadam ubbil si naa def maa ngi lay ziar jëf ah naa la bàyyi nga ba. Kalifone Fadam bisimilah loo bëggoon wax maa ngi bëgg a Kalifone vite fait waaw nekk leen di wax. waaw mais noonu la noonu la noonu la àdduna am solo xam nga tey jii man lima ma ciy wax rek benn point rek laa ciy yaatal. Mhm. mooy ku góor ki di PDG Doro Gueye ku am personnalité la. Mhm. ndax yaakaar naa ne fe yàgg naa ko fekk teeru bi ak yeneen place yoo xam ne nii. place yu bari yoo xam ne dañuy toog di waxtaan. muy góor goo xam ne nii boo ko fréquenté wala nga jege ko da ngay xam ne kii ko am personnalité la. Mm-hmm. ay jigéen nag bu ñu nekkee coow mënta ñàkk seen diggante wala waxante. Mm-hmm. mais l'essentiel lépp lu ci mënti am rek na ngi sóoraal ne seen jëkkër ak seen borom kër borom image la. ku Sénégal xam la ku yàgg liggéey ngir réewam la. ku Sénégalais ràññee la ci lu baax. Mm-hmm. te grand bi amul benn détail boo ko mos a fekk boo toogeek moom mën ngaa toog moom une de temps yoo xam ne nii ñaari moom lay wax ak yow. muy grand boo xam ne nii grand bu grand la grand boo xam ne nii communication bariwul mu nekk kenn koo xam nii ko am personnalité la. ay jabaram nag man miinuma leen xaw ma leen mais l'essentiel li am solo ba solo rek liñ ciy wax mooy Sénégal. day toll guddi yoo xam ne nii nit ñi en général lu bëri li ñuy bëri di werante mooy dañuy ñàkk sax lu ñu communiqué moo tax yenn détails yu bëri dañ ciy concentré pour mën cee wax. Mm-hmm. mais diw am na jabar te yàlla bind ñu pour ñu am ñeenti jabar loolu dama jàpp ne jarul dema mais li ci am solo ba am solo rek jigéen ju ci nekk na nga xool fan la góor ànd ak yow ak fan la la indi man boo tegoon ñaari jabar mi mënuma laa wax ne kii mooy diw wala kii mooy diw. mais li ma ciy wax rek mooy seen borom kër ku am personnalité la ku am image ci réew mi la ku waa réew mi xam ci lu baax la yaakaar naa ne jotaay yow boso boo bokkeek moom jotaay danga naan man nekkul ne man kii laa doon dégg wala kii laa doon muy PDG Zoro Gueye yaakaar naa ne fekk nañ ko teer bi fekk nañ ko Pullman fekk nga ko fu bari foo xam ne nii liggéey moo ñu boole te ñun ñi nga xam ne ni tey te li ci ëpp mooy dimbalekatu doomu aadama la te du dimbale ci ci kam ci ay caméra kon bu ngeen yàlla may jëkkër joo xam noonu la mel ci réew lu ci bari leen koy suuraale ci image am lu bari waaw pour ëllëg quoi ndax ëllëg xamuñu Doro Gueye lan lay doon ci réew mi ëllëg mm-hmm. te lépp lu ngeen def ci lu jëm ci média rek lépp loo def lu jëm ci média rek ëllëg archive da koy bind te bu ko archive bindee mën naa yàq ci sa image yu borom kër dara moo tax bépp jigéen pour sa personnalité wala sa dignité ñoo ngi koy xamee ci sa borom kër bu la utalee wujju wala nga utal la rakk wala leneen. dama jàpp ne dama jàpp ne euh, am na góor ñoo xam ne nii. yàlla may na leen teraanga mais siiwuñu mhm. te yor na ñeenti jabar kenn mësuta kenn mësu koo dégg mhm. kon tey jii en général PDG Doro li ko yàlla may tur en général moo war ay mbiram demee nii mais nañu xam ne rek man benn point rek laa leen di dénk mooy ay soxnaam mooy nañu xam ne seen jëkkër ëllëg mën naa nekk ci réew dara koo xam ne nii sa jëkkër xamoo li muy dooni ëllëg lépp lu ci jigéen di génn di wax wala bépp jigéen lim ci génn ci image wala lépp loo xam ne da nga koy réactionné na nga xam ne bu ëllëgee loo mënti doon bu sa jëkkër nekkee dara gars yi dinañ jëli jiwaat image indi la sa borom kër. kon loolu tamit lu jar a bàyyi xel la. Mhm. te rawatina sa jëkkër nekk benn chef d'entreprise nekk ci réew mi nekk ku ñëpp xam mu nekk koo xam ne nii bépp kilifa bu nekk ci réew mi rek jox nga ko cër jox nga ko jox nga ko jox nga ko jox ko jox ko respect ndax am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi naan Doro Gueye Doro Gueye Doro Gueye mais yàlla mayu leen chance ñu toog ak moom mais boo toogee moom benn cinq minutes danga naan noo kii nekkul kii laa doon gis nii nii nii ndax lu mu gaaw gaaw gaaw dina la rassurer dina waxtaan ak yow dina la yedd dina la yax fan ngay mën a jaar pour mën a réussir ci sa àdduna kon genre quelqu'un yu mel noonu lépp lu ay jigéen di def ngir ñoom nañu sóoraale ne ñoom seen image ëllëg war na mën a te nekk ci leneen lu bokkut ak lii te bu ëllëgee bu nit ñi jëlee ji image yooyu indil leen ko tey rek bu ñu xasee seen jëkkër ñoom mooy tax ñu xas ko te loolu nag lu jar bàyyi xel la ndax réew mi foofu la toll sama jigéen. dëgg la dëgg la Fadel. <laughs> dëgg la li nga wax dafa am solo te jigéen bu ne war nga sóoraale loolu. Mhm. gis nga nit doo xool sa bëgg-bëgg rek gis nga nit doo xool comme souvent ñu sénégalais li ñuy dal mooy sa intérêt personnel loolu mooy waral problème yi parce que li nga wax dafa am solo ëll Doro mi ëllëg bu na doon lu ne ci réew mi. na mm-hmm. tey bu doonee dara ci réew mi ñoom ñii li ñuy waxanteeg yi ñuy def nii yëpp dañ leen koy tegalaata parce que sénégalais moo mel noonu. Mm-hmm. du fàtte. léegi ma jox la benn exemple. waaw. ay soxna Jomaay suñu président bi. Uh-huh. waaw. bu fekkoon ne démb dañoo nekk ci page réseaux sociaux yi di waxantelu ñaaw wala dara. waaw dañ leen koy tegal. vaar rek dañ leen koy tegal. léegi nag l'essentiel da xool ne tey jii nit mën ngaa xam sa tàmbali mais mënoo xam sa fin. gis nga Fadam. nit ki mën ngaa xam li ngay débuté nii mën ngaa xam ne man benn lii lii am na loo ne ku yàlla boolewut ak yow wërsëg rek du ngeen ko bokk. dëgg la ba pare ay wujje yi sax da dul kirim nag fadam dëgg neexul du kirim boo rogee takk ñaareel du kirim ci réew mi loolu dara du kirim te te moom mi koy takk mën na ko mën na leen a yor xam nga bu fekkoon ne Doro mënul sax ñu ne mënul waaye macha allah yàlla dogal na mën na ko ba day jàppale doomu aadama yi reyul nit defut deli dafa takk ñaare loolu dara newu ci sama waa sama waaj ji aaw bi toog noonu moo waroon toog fee place am. non non soxna si soxna si. Mhm. pour ñu mën a équilibrer ci waxtaan. waaw. dama lay jox benn conseil tuuti pour ñu mën a équilibrer ci waxtaan. Mhm. bu dara xewee. Mhm. du ñu jël exemple ci ñi nga xam ne ni tey jii ñoom la loolu dal dañ koy jël ci ñi nga xam ne ni ñoom dundaguñu loolu. waaw. li ñuy wax nii bu fekkee ne daal nar a dem. waaw direct ci PDG Doro Gueye ak ay soxnaam kon amatul sens. Uh-huh. ndax PDG Doro Gueye ak ay soxnaam loolu seen vie privée la. Uh-huh. mais am nañu droit jël kàddu na leen. mais Fada nekkatul vie privée de ba ñëwee ci réseaux sociaux yi. waaye yéen yéen waxtaan bi si la xaar ma ñëw. Euh, ok maa ngi sax parce que. Uh-huh. waaw léegi léegi bon waxee mooy. waaw fi may waxee mooy. Uh-huh. bu bu dara xewee. Uh-huh. lan ña affaire bi dal. yéen a ngi si ban tomb ngeen toll nii. non comme man dama ne. dama ne non léegi bu ngeen waxee pare man nag wax dëgg xam nga rek de Sénégal nag xam nga ne Kaliphone da ko nii nag. <laughs> Faram loolu leer na la nag. <laughs> xam nga la moo tax souvent du ma bëgg di kii kenn waaye xam ngeen ne nag. lu Kaliphone xam ci Sénégal nag ah, eh, waaw tamit. yow Kali Kali Kali yow xamante nañu Kali. gis nga yow fi nga euh, problème bi xam nga rak yi euh, excusez-moi photo yi nag ba ngeen ko xoolee duy bees photo yi dafa yàgg mais rak yi daf ko dencoon mais ba mu gisee Clara wax dëgg fa yàlla nag dugal sinapa moom it di wane naka seet bu bees la moom it mu ñëw di defante. mais sama yaay Clara moom it sax boo xoolee sax dindi na sax photo yi moom parce que gars yi daa mel ni Allemagne ak Japon ak France ak Fouta ak fépp Racky moo moo moo jël bureau de vote yëpp waaw waaw Racky Racky Racky moo gagné Sénégal waxuma la sax Dakar ak Thiès ak Sénégal ki yëpp parce que ni mu doxalee moo tax rakki rakki jël bureau de vote yëpp Clara ni mu doxalee moo baaxul. waaw non xam nga xam nga man dama si bëggatoon xuus bu bëri sax mais xam nga man moom sax waaye nag. lépp laa teg fii nag. xam nga nag pour dire vrai. non déglu ma kali grand nag dafa bëgg kii nag. bu jekk bi nag xam nga ni gara bi nu ko tegee si jën yi di eh, nii. mais kali. kali ba ba ba gisee bii daf ko bett nag mosu doon xalaat ni nag yu mel ni nekk am na xalaat ko de parce que mosu ko gis. mais nag góor-góor la bu takkee soxnaam buy dexee sax def si let maama ah, piscine. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla parce que jëkkëram la. waaw waaw defante baaxut. baaxut xam nga kalaaraa lu ko waroon tey buy delluwaat si sëy koo xam ne sëyoon nga ñu takk la ba nga def lépp ba may doom problème am na juboo amaat na solo sa euh, euh, euh, mël fa rek toog sa biir kër. tee sa kurus mais di defante di wane ne que way yaa ngi defante. kee nag wane na la na si nag sa defante bi yëpp tamit bu safoon sax sa waa ji bi ñëw fii waaw dinaa si ñëw sax yi a garaaw damay bàyyi ngeen euh, euh, euh, kii rek argumenté après ma am ñu ma kii xaar xaar maa di photo xaar maa di photo Clara yi sax maa fi sama nit balaa ñu naan rakki rek laa maa ngi ñëw waaw léegi man soxna si soxna si man benn point rek laay daanelee man waa Fadam waa rek laay déglu waaw man point bi may daanelee rek exemple la bépp jigéen buy sëy ak boroom këram war a jël ci lépp lu mënti doon. waaw. ñaar ñu yàlla boole ñu bokk boroom kër. Mhm. jàpp leen ne bépp image bu ngeen génne ci seen kanamu boroom kër. te sa jëkkër nekk benn nit boo xam ne nii ëllëg yàlla mën na koo nattu mu nekk quelqu'un ci réew mi. Mhm. bu ñu xasee seen jëkkër yéen a ko xaslu. Mhm. ndax góor góor kese la. Mm-hmm. waaw l'essentiel lépp li am solo ba solo daal mooy fi Sénégal jëm. li ngay wax ni loolu Clara mi moo ko waroon xam xam ne du xale magum jëmm la mooy aawo. waa ji na ko bu yàgg teral ko defal ko lu ne. ah waaw doole nag. xam nga xam nga xam nga xam nga fa dam dëgg bu jotee li boo ci dut fay bor doo ci leb bor da nga ci da nga da nga jaar ci digg ba. Kali Kali na la yàlla defal jàmm jërëjëf. jërëjëf yaa ngi daw. <laughs> Kali yow rythme bi daw kenn attanatu ko ci réew ah man xam nga nag souvent ma réer tuuti mais parfois ma te ko si code de. non mais Kali Kali parce que maa bëggul woon ah gisoo Adamo daf ma woo ne ma bàyyil bu sedd gars yi bëri ne Adamo Adamo. non non mais yow tamit. Kali mais sama grand war a am jàmm. non yow yow grand bi tey jii buñ ko xamee ñun yàlla ak yow la. non dama ni grand bi si boppam moo war a dund ajana. waaw. parce que góor tamit góor bu jékkee-jékkee am driyanke am jongoma am lépp jékki-jékki dem wuti leneen. am na lu xew. am na lu xew de. bakkan jàmm la bëgg. mu jéem. moo bëgg jàmm. jigéen topp góor mbaja ja ja ja ja góor gi day doyal sëkk de. góor bu génn wuti leneen rek am na lu mu am am na lu tax mu génn. am na lu mu amul am na lu ko manqué. ah maa wax de bëgguma sori nag tamit balaa ma naan Kali wax. na jërëjëf jërëjëf balaa ngaa xóotal ah, nuyu naa la Fadam nuyu ma buuse. <laughs> Fadam jàmm xéewal. sa copain ah ah yàlla baax na xaaral ma jël gars yi ba ñu waxagum si après ma doog a xuus nag dama war a wax nag de wala ma noppi. noppi nag yow Kali grand bi sa grand yow bàyyi mu sedd. ah man grand bi sama grand la mais Kali xam na ni. grand bi xam na ni Kali dëgg rek moom la faral dama bëgg sama grand bi di happy dafa war a dund liberté. dafa war a happy sax nag. dafa war a dund happiness. te ay dara karaaraamee. Eh. sama grand bi bu eh. yow ah yow yow téléphone yow da nga wuyu téléphone rek carte gi changé daf demee noonu. Ah, yàlla baax na. <laughs> <laughs> adduna la kale yow dafa dugg rek parce que parce que bi may a dugg danga naan waaw sama yaay Clara. mais damaa ubbi woon damaa ubbi woon damaa nar wax Adamo woo ñaan ma dara ma may ko. mais après tamit dañ ma ne kali xanaa nekkatoo ko nag. te te te ngaa a jéem garab bi sa garab bi bàyyi mu sedd. su boppam mu ngi seetaan rakkee ngi seetaan. Clara moom ah, wóorul ma na ma ci moom bi moom mu ngi sëngee mu moom. ah man de waxuma man daal man man ci rakki laa far man rakki ay dara man ci moom laa far lii du problème lii du problème mais Clara mënoon na ñëw rek nekkat ñaareel bàyyi rakki mu nekk aaw comme moo demoon kay loolu mettiwul moo yóbbu woon boppam non mais waay sax sagalaat na ko ne ko ba la du ñëwee tamit mooy jël aaw mooy jël place aaw ba léegi de déedéet yoo yoo demal nga laajte feneen nag loolu fan la yow may ñu jàmm nga ne sa aaw boo am ak doom nga takk ñaareel ngeen am problème bu waatee aaw bi ba place aaw ko ci ne takk nga ko mu sëy mu nekk sa aaw ngeen am dem kee ñaareel la kee bañ koy takk takku ñaareel lañ ko takkee. gis nga ñu ngi la koy li ma la wax man ñii di commentaire fii dañ ma gën a li may wax man may kilifa xam nga dama lan. rakk yi bañ koy takk place lan lañ ko takk du ñaareel waaw aaw bi dafa puus dafa voyage rek ñëwaat day jëlaat place am rek c'est ça. yow kay da la wax li la kay lu leer na bu doon dafa dee ñaanu ma ko yàlla bu doon dafa dee léegi aaw amatu fa. ñu ko bind troisième. waaw la wax may déglu man ñii di commentaire ay booy yi am douze ans ki treize ans ñooy commentaire souvent dam la boo takkee aawa nga demaat ba ci biir nga takk jabar lan ngay am du ñaar. waaw. aaw bi bu ngeen jotee mu fay mu dem kër yaayam wala lu mu mënti doon. waaw bu ñëwaatee mooy position aaw bi. bu fekkee tasul. même bu tasee day jëlaat place am. ñaareel bi kañ lay nekk rek awa mooy aawa ba de dee na génn na àdduna moom mu puus mu xam ne fii nag sama jëkkër nekkatul ak soxnaam su mu amoon fu mu ne nii maa fi sës parce que man balaa may ñëw am na ku mu amoon léegi nag comme kooku nekkatu fi fu mu ne nii maay pay maay un. mais bu kee demoon ñëwaat day jël place mooy aawa man ñaareel lañ ma taxoon place su ñaareel laay des noonu la fay demee place su ñaareel la parce que bañ koy taq dañ ko ne lan ngay taq mu ne ñaareel laay taq. kon munoo ne yaay ñaareel kay am problème rek nga ñëw ne aawa lañ na taq déedéet yow ñaareel lañ na taq bu taqaatee beneen lan lañ la taq ñetteel yow place su ñetteel lañ la taq parce que kii am na ñaari jabar si diggante bi bu aawa demee wala ñaareel dem yow ñetteel lañ la taq. waaw yow munoo wax ba nekk premier yow tu es une femme léegi nag comme A bi dem na léegi deux deuxième bi bu avancé yow da ngay ñëw place deuxième bi léegi góor bi mën na takkaat keneen parce que bul ta fàtte ne fase mën nga fase mais mën nga ko takaat boo ko takaatee du nekk quatrième femme du nekk troisième femme ki nga takkaat mooy sa aawa bi nga jote lool moo nekkoon aawa jote ngeen xuloo ngeen fase nga ko takkaat nga ko moo nekkaat aawa bi rek place am lay jël quoi donc noonu la fa euh, première dame xam naa comme am na ñeneen ñu bëgg yëg après boo daanalee après ñu fay deleete lan nga bëggoon dolli. xanaa yow. merci première dame ah. xanaa boo déggee sama baat sax xam ne damaa sonn kali. naam kalifon kaddu yi may yëkkati di ko jëmee ci yow asalaamaaleykum waa bi maa ngi leen di ziar. jàppal ne sa waajur wu jigéen moo ko jëmale ci yow. kalifon yal na la yàlla sàmm. làq la fu yàq yeegul yal na la cat seexlu amiin yal na la musiba seexlu yal na la balaa seexlu Kaliphone macha allah yaa wax ci sa gémmiñ ma dégg xaw ma la xamoo ma mais fi nga jaar à l'âge de dix-huit ba tey jom rek nga fees fulla nga fees nitu dëgg nga yal na la yàlla dimbali Kaliphone lépp loo bëgg yal na la ko yàlla defal yaa am jom jërëjëf nii la góor dafay ñefee wutal boppam amal boppam te di ci def lu baax ak yu baax yi nga def sa àdduna yal na la ko yàlla fay amiin yàlla pal alamin lii doomu boobu fi dugaloon yàlla yàlla fay sa xol mama jërëjëf si ñaani yàlla guddal say fan jërëjëf donc yaay la moom it vraiment kontaan na si suñun yàlla na yàlla sàmm jërëjëf euh, Galsen borom pirate kat bi pirate rek nga nekk yow loo bëggoon jox ma sa compte moo gën te nga bay caaxaan. ay YouTube am nga compte bu am temps de visible kay soxla ma. non contribution la ñaari ñaari ñaari si ñaari nga wax rek. waaw mooy benn mooy. ci diine laa man diine laa la quoi xam nga diine kan lay fas a dagan mooy suñu suñu la waxee fasanan la nga toog ba sa idée jeex idée mooy nga toog surtout trois fois nga xam ne gis nga ko gis nga ko règle quoi say règle troisième trois su demee nag ba sëy bi tas moom. jabar amatu fa comme tey jii nii rek bañ ko takkee ba léegi man na at un an de mariage day fete nii comprendre nga bu dee tey jii dañ ko takk jàppal ne bu dee doo regee ñaari jabar kese laa moom mooy rekki ak ak ak mooy aaw guddiñ si diine la lay wax man diine laa lay wax de waxuma la cosaan si diine laa lay wax mooy aaw yaa ngi dégg Karara mooy dégg parce que fas nañ ko dañ ko takkaat tey tant que suñu la takkaatee rek yow da ngay commencer à ñëw topp si ginnaaw loolu diine la yaa ngi mm-hmm. léegi photo yi nga wax sànq dëgg la photo yi am na photo yi yàgg mooy sànq yi raak yi dugal ak vidéo yooyu yàgg la mais photo bi door a du ko fóon la démb ak tay la loolu laa si bëggoon yokk rek na yow photo yii nii nga ne yu fóon yi démb la kii yii gis nga bii xaaral wax la bii ak ñoo bokk ndek la waaw dam bi loolu duñ ci werante gis nga lii Racky moo bëggutoon parce que sayam bu njëkk ba comme réseaux sociaux ko tas moo tax yii mu ne woon ta du ko mos a wane. non dama dama dama lay expliqué xam naa bokkuñ peut être xam nga yow da ngaa ko da ngaa ko jëlee connecté yoo xam naa si kaay man dama wax loo xam ne man famille Racky laa wax ki nga xam ne que cousinam xaq xam ba muy bañ takkee Racky laa la yàgg na de yàlla xam ne moom ko njëkk na takk takk nañ moom yoroon na vidéo yi. soo xoolee wala photo yi moom photo yi ma la wax nii yi nga moom yàgg na loolu maa la ko maintenant lii moom mooy lan yow kot ah déet bu dee bu dee moom bu dee rakki moom takk nañ ko at Karaara gudduñ tool ni ñaareel soo soo demee soo demee soo demee senap copine bi xaritay Kolaara yi ñoo ngi def benn benn senap si YouTube bi non si senap bi waa jaa ngi naan daam bi moo ngi naan ah lépp door a gay la ko teg ñoom ñoo ngi commencé jëfur instant yi ni Karaara aussi su supprime na photo yëpp donc ñoom. ñu ngi lay Clara damay bañ mu ñaanaat baat nag moom it. Ah, instant yii daal soo bëggee dégg-dégg problème am na moom Clara moom moo ngi moo ngi moo ngi ah, parce que bato dem bato costé rek xam nga luy problème nag nit dee waaye jigéen bu dem beneen jigéen bu ñëw moom problème amu si nag wax dëgg fa yàlla. sans pourtant sans wax nga wax nga am solo de bu ñu takkal ñaari rek am na loo manqué. loolu laa wax ah waaw oui. nga wax dëgg nga wax. la bëgg. rafet na rafet na yow capturel rek. gaal <laughs> seen bisimilah yaay rasul. waa kali def. ñu ngi sant de. Euh, kii mu kii wax léegi li mu wax d'accord ma ci de. Ah. ñu takkal rek. am na lu tax ñu loolu amul. Ah. sànq dangeen ko wax ne yàlla moo ne. julli dafa war am ñeenti jabar. dëgg la. yaa ngi dégg. Ah. kon d'accord moom ci li wax. Euh, Clara nag xaw ma tasoon ma xaw ma tasul mais affaire bi kat yi affaire de wujje la gis nga wujje moo demee noonu loolu la yàlla ah. dogal parce que kenn bëggu ko yaa ngi dégg xaw ma dañ ko takkaat xaw ma da daan da doon beesalaat takkam sëyam xaw ma nu mu demee yàlla rek moo xam man comprendre ma ci dara Racky Aïdara mii tamit bis bisu tey laa xam ne sax moom kii jëkkëram la parce que man du ma dugg ci lu xam ne te ne leeru comme ni mu ko nëbbee noonu. kenn xamul rumeur yi daw ñi naan takk nañ ki ñi naan takkuñu ko tey rek laa xam ne man ah waa ji takk na eh, kii femme bi ay dara beneen bi man awmalu may xalaara xam tax moom dafa sëy ak waa ji jaboot am ci ay doom macha allah yàlla nañ dund Racky laay jox benn conseil comme moom yàlla xale la te amoon na jëkkër xam nga yàlla weddi yàlla mayaat ko boroom kër xam nga nu mu war a def man su doon maay moom man wujjëw ma man damay sëy te yàlla tax ñaan yàlla suñu borom mu may ma ci njaboot yaa ngi dégg ndax kii muy wujjeel am nag njabootam moom bu fekkee sëy rek ka tax a jóg na fexe nu mu sëyee jaamu yàlla yàlla subhanahu wa taala may ka njaboot daam sax eh, njaboot boolewuñu ko ci sëy yaa ngi dégg mais am na ci solo du dëgg kon ñun sénégalais yi xam nga lu ñu war a bàyyi ah euh, dañu am benn façon de faire boo xam ne ñu ngi koy def te loolu c'est pas bon rafetul gis nga euh, door a Gueye mii yàlla mën na def ëllëg mu doon dara ci Sénégal mooy comme li Fadam wax sànq ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jabaram nañu rafetal def lu naayis yaa ngi dégg parce que ëllëg a tax ëllëg du añ du waaye dafa mat a dafa mat a sédd nañu xool li ñuy def bul xool tey rek yow da xool ëllëg loolu la euh, conseil bi ma am daal raki laa koy jox. moom ci xale la. na xam ne xale la jéem a sëy gérer sëyam yàlla may ko ci njaboot bu fekkee loolu la ci bëgg wasalaam. jaajëf am na solo. acca bisimilah l'autre te yàlla sama grand bi daa guddi rek mais suba moom ubbil sa micro gawlo suba moom grand bi dina ma lay tubaab mu firi moon nag wax dëgg fa yàlla dinaa yeebi sénégalais de. allo bu neexee yàlla. lay doon nuyu naa la. allo. oui Kali. naam. yaa may dégg. bu baax. Euh, ça va ngi ci jàmm. ngi sant borom bi de alhamdulilah. gis nga man euh, j'ai pas l'habitude may dugg ay ay direct affaire yooyu noonu. mais Doro Gueye moom moo war a jël ay responsabilité nit da ngay am fulla am fayda. ah déet am na fulla nag yow it. dëgg ma rek rakk jabar